Euh, Anta Babacar Ngom euh, man euh, ay waay juróom ñooy sama xarit muy sunu champion national boobu Babacar Ngom borom Sedima ak Tata Ndeela soxnaam surtout nag Tata Ndeela nga xam ne sama yaay la waaye Babacar Ngom borom Sedima liggéey ci réew mi lu nit mënta dindi moom de moo révolutionné jaayum ginaar ci mim réew Sedima ku ne dégg na ko muy fierté nationale euh, Anta nag du sama xarit du sama xarit je ne la fréquente pas on ne se fréquente pas euh, une fois laa ko monsieur a gis euh, une ou deux fois laa ko monsieur a gis la première fois ci jamonoy Ndengleer la seconde fois ci euh, campagne présidentielle bi te lépp nag ci euh, euh, kanamu waajur yi ñu bokk muy Papa Babacar Ngom donc comme ni ma du sama xarit tey campagne présidentielle bi yéen ñëpp yaa yenn doon ngeen dégg may wax ne ni mu ci duggee euh, ak ni muy defee campagne bi erreur la parce que dafa nekkoon di justifier euh, richesse am ak yooyu mel na ku ci kuy ku ku ku kuy regretter lu tax mu riche ak yooyu nangam di di bëgg a pauvre pauvre lu di raconter ay affaires yoo xamante ni nii ba Sénégal yi di ko challenge ak yooyu euh, mere woon na ma ci sax Anta ndax waxoon naa ko fii euh, defoon naa si benn commentaire boo xam ne neexu ko woon euh, j'ai beaucoup apprécié nag elle a eu le courage woo ma téléphone ñu waxtaan si longuement parce que elle n'avait pas apprécié ce commentaire là ndax dama waxoon ne fii elle n'a pas à se justifier euh, d'être née riche parce que li muy doon wax noonu yëpp papa ji wax na ko waaw ba sa sais papa am jaar-jaar bi mu am wax ñu ñun sénégalais yëpp raconté ñu son raconté ñu son histoire xëyul suba rek moom papaam euh, euh, kii euh, milliards yi daanu ci kawam dakaa liggéey ñafe ko am jaar-jaar kon Anta n'avait pas à rougir d'avoir le train de vie qu'elle a au contraire elle aurait dû mettre en avant dëgg-dëgg son parcours en tant que chef d'entreprise xale la jigéen la mu am fit di diriger entreprise bi doy ne Sedima waaye ba ci des mooy sunu réew mi duñ ko dénk kenn ku xiif duñ jël benn pauvre dénk la sunu réew mi ay milliards ñu dénk la ko ku suur la ñuy jox sunu réew koo xam ne leer nañu ne bu ñëwee duñ sàcc buñ ko joxee réew mi du jaawale poosam ak gafaga réew mi loolu njort la ak yaakaar waaye boo fekkee benn troxlaan benn kenn ku pauvre bari ay bor bari ay det ku mel ne man nga xam ay bor kese laa fees dell nga jël réew jox ma ko dénk ma ko mais kooku kay yaa ma sàccloo yow yaa ma sàccloo mais da nga jël koo xamante ni nii suur na démb balaa ñëw du dugg ci palais bi di jommi ñu ñu ñu defal ko dressel ko table bu duggee salle de banque jommi ñu ñu dressel ko table mu yuuxu di say naan lii lan la jox ko ni tamna lek sourna li la wax euh, elle avait fait des erreurs de débutante ci campagne présidentielle mais force est de reconnaître que ni mu démarré ni ci élection ci campagne députée, député yi ah am solo la euh, euh, elle a elle elle a beaucoup mûri politiquement Elle mi ngi assumer leadership féminin on en avait besoin quand même ndax wax dëgg yàlla fii euh, on avait de grandes dames yoo xam ne amoon nañ ci espoir ci ñoom ci ñu relever le niveau waaye boo xoolee rek sunu yaay Mimi Touré ni mu mujjee ak euh, gàcce nationale bi Mimi Touré doon une honte nationale vraiment euh, quand tu vois une Anta Babacar Ngom qui se bat bien qui se bat courageusement koo xam ne mënoon naa décourager ci résultat yi mu am ci présidentiel bi waaye loolu daf ko jàppee expérience euh, enrichissante et euh, elle en a tiré les les conclusions qu'il fallait en tirer ndax gis nga depuis boobu avant sax yii di xew bu dara xewee gis nga ko mu dugg ci page Facebook am joxe xalaatam mooy la woon ne kii deful woon élection présidentielle benn promenade de santé utu ci woon ut buzz taxu ko woon dugg ut ay lijjanti taxu ko woon dugg ci présidentielle yi kon nga xam ne Anta Babacar Ngom mii dafa ñëw pour rester durablement dans la politique et pour impacter positivement ci dundinu sénégalais et ak sénégalaises yi kon dañ koy encourager di ko féliciter ne fi mu taxaw fi la war a taxaw mooy jege askan wi te fi mu liste bu mu dugg la war a dugg ndax ay moroomam ñoo fa ne ñu bokkal génération ñoo nekk ci liste bi ak ñi ko gën a féetee sax mag ndax euh, seen liste boobu génération 80 euh, yi ñoo fa ne ak la petite euh, kii 70 yu ndaw yi ay 75 73 euh, ay 73 ñoo fa ne ay 72 ak 73 ak 76 ak 75 ñoo fa ne ay xale yu tuuti ñoo fa ne kon mooy listam ñooñu liste sàmm sa kàddu bi mooy politiciens yu bees yi yi sénégalais yi soxla ñoo fa ne kon Anta Babacar Ngom dañoo yaakaar ci moom nag pour mu relever leadership féminin politique bi nga xam ne dafa nekk en berne parce que ay maire yu tas ñoo fi nekkoon maire yu ràjj yoo xam ne dégg nga euh, tekkiwuñu dara ay maire yu opportuniste ñu dem làqatu ci ginnaaw Ousmane Sonko kooku di leen euh, def naka laka ñu dem ànd ak Ousmane Sonko au détriment de la euh, de la population kon Anta Babacar Ngom c'est une bouffée d'oxygène ci marasme bii dal la gente féminine politique ndax ñun jigéen ñi nak suñu représentativité ci politique dafa bari wul kon Anta Babacar Ngom dañoo contane bu baaxa baax euh ci taxaway bi mu am ci politique bi euh ses privilèges euh de de de de euh, de chef d'entreprise bàyyi confort personnel am bàyyi lu bare bare bari ñëw nek ci wetu askan wi

fanaan ci góor ñu góor ñi ni fanaanee ci mbedd bi taxaw ñoom ñëpp ñoom ceeno bokkum ak yooyu ñoom kii xale bi sant faal kii faal ñoom ñëpp mu jàkkaar mu toog ñoom ñu toog ci ñu toog ci ci ci naaj bu tàng bi te mu yor confort bureau euh, ak climatiseur am yooyu yëpp waroon na fi nekk benn princesse parce que elle a une vie de princesse dégg mais mu bàyyi loolu yëpp ñoo toog toog góor ñi ñu toog ci buntu commissariat euh, bu Bakel di soutenir seen frère seen xarit Bougane Gueye Dany elle n'a pas démérité kooku ku jar a félicité la ku jar a encouragé la euh, euh, te euh, wax dëgg yàlla kontaan naa ci moom loolu ndax en tant que femme bu ñu gisee jigéen ñu ñu ñu am courage ñu am valeur ñu véridique ñu mel ni Anta Babacar ngoom dañ leen a war a tàccu encouragé leen ndaxte actuellement ñun jigéen ñu nekk ci politique bi yëpp ñu bëri ñu fi nekkee seddul suñu xol kon loolu dama tëniroon defal ko wax ko ente Babacar Ngom te mu nekk lu ma gëm loo xamante ne nii ñun jigéen ñëpp dañoo war a jàppale Anta Babacar Ngom ndax xale bu tuuti la di jigéen di une grande dame nag di chef d'entreprise kii 2029 ci kàttanu yàlla Anta Babacar Ngom ku nar a la ci euh, no politique bi na wane na ko te euh, ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dina dugg assemblée te député la boo xam ne taxawaay bi mu nar a am assemblée nationale taxawaay bu bu am solo la si ñun jigéen ñi mais surtout ci xale yeeg ndaw ñi ndax moom jaar-jaaram rek ak parcours am parcours enrichissant et fructueux en tant que chef d'entreprise, je jël donné ko nak ci yor entreprise Il a ko euh, euh, euh, mettre une parenthèse pour ne pas dire une croix sur sa vie de chef d'entreprise. ñeu résolument ci politique bi di en direct nakaru askan wi ak ak la kon ñun kontaan euh, ci yow bu baax a baax a baax a baax euh, te di la gërëm na di la sant